Anyways.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 nag yoon dana ko daan lu toll ci juróom-benn weeru kaso ndax ñu ngi ko doon jugé ci wàllu mbuxum maanaam escroquerie ndekete woo soxna si li muy sey ak beneen waay yépp ci wet gi mu ngi doon raasaatu ab ex copain bay seq ak moom mbiru xaalis eskay yëf yi nag nee ñu nii la demee ndaw si dafa gis ancien copain bi di wuyoo ci turu M Seck ne ko dafa décroché ab marché bu mag bu yëngu ci wàllum yàpp tubaab di ko wax viande ci ab directeur général bu mag bi mu demee nag ba convaincre ex copain bi ci la waa ji dal di am confiance am jox ko lu ci téeméeri million ak ñeent fukk ak ñett aw law <laughs> lii nag doy koppar yu tuddee AS nag gannaaw bi mu encaissé koppar yi dafa dellu si waat ex copain bi bi ne ko marché bi ko doon wax ak boobu bokkul <laughs> ah problème yaa ngay démarrer nag ci kanamu yoon nag ex waayam ji di am sek nee ndaw si da ko mbuxum juróom-ñetti million ndax téeméeri million ak ñeent fukk ak ñetti yi PV yi visé ay investissement la ak ay commission yu mu war a jot ay waay doy na war moo tax ma ne man dey dama xamul naka la jigéen bu am jëkkër di seq ak ex copain mba ay affaire escroquerie di ci am moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax la xew ca Ziguinchor romb yamba la ñu fekk ci ab armel nga ni ma yi fu ne la ñuy miine bagage yi mbir mi nag mu ngi xew dimanche bi weesu jur fa coow lu rëy ab sac bu am ñeenti kilo yamba la ñu fekk ci armelu Belfort yi nekk ca Sigicoor la ilaha illallah nee nañu nag lu tax ñu gis yamba jooju communauté murit ba fa nekk ñoo doon nettoyer armel yi ci la ñu gisee ab sac gannaaw ba ñu xoolee li nekk ci biir ci lañ gisee ne sac bi yamba la def ci noonu nag la ñu aviser élément centrale bu Ziguinchor ñu ñëw koy yóbbu dal di ciy ubbi ak l'enquête moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Tambacounda romb na doy war am noddukat la woy takk der yi fekk ci jàkka ji dal koy teg loxo ci wàllum jaayum yàmba mbir mi mu ngi xew altine bi weesu MD am lu toll ci ñeent fukki at ak ñeent la ñu fekk ci jàkka ji nekk ca quartier Gurel Jaaje ba nga xam ne fala la doon noddee dal di koy teg loxo ci wàllum jaayum yàmba ëskëy tey mim réew waa ji nag nee ñu dafa am ku ko jaay te nee nañu waa ji ko jaay sa waay ci boppam daf ko jaay ñaari mbuus ndekete woo ñaari mbuus yooyu yàmba ci nekk ëpp law ci noonu nag la way takk der yi ñëwee fekk ko ci jàkka ji ci biir koor gi dal di koy teg loxo ëskëy waa jooju nag nee nañu yàgg naa def lu ni mel ndax 2019 jàppoon nañ ko ak ñetti kilo yi yamba ba yoon tëj ko lu toll ci ñetti atu kaso ci ab grâce sax lañu ko bàyyee woon waay waay nii la mën a demee waay moo tax ma ne suñu jàkka yeeg jumaa yi war nañoo xoolaat li ci xew ndax imam du caaxaan institution la bilalit du caaxaan institution la waaye léegi suñu jàkka ak jumaa yi fu waay jógee nekk imam fu waay jógee taxaw nodd moo tax yu mel nii moom bi ci jóg waay protéger leen suñu lieu de culture waay mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje di ci yeneen xibaaru buzz